chance chers internautes KSTV bonjour maa ngi leen di nuyu leen ziar comme ni ma leen koy waxee rek man Binouche en action ñoo ngi si suñu premier émission GPS Tour GPS Tour nag tey dafa daagu ba Géejawaay di dalal kan une jeune animatrice une jeune bi nga xamante ni dafay soog a doon ci métier animation ñu koy woowee xaritu baayam defuma lu dul daagu nank rek ak sama caméraman ñu daal di ñëw fekk ko ci saal Euh, chers internautes KS TV bonjour maa leen di nuyu di leen ziar maa ngi am mbégte ak contentement di leen dalal tey seen première émission GPS Tour GPS Tour nag tey dafa daagu ba Géejawaay ñoo fekk fi une jeune animatrice nommée Xaritu baayam Xaritu baayam ginnaaw bi ma la nuyoo dalal ci sama plateau Xaritu Bayam nuyu naa la. Euh, fay naa la Binuche maa ngi leen nuyu di nuyu euh, chers internautes yi ñuy seetaan à KSTV am mbégte ak contentement ci invité bi nga xamante ne invité nga ko fii sa biir plateau comme ni nga waxee muy sa première émission euh, GP Stove. waaw comme ni ma ko waxee ah, tey muy sama première émission GP Stove GP Stove nag nii rek lay def di wër xale yi nga xamante ne wala mag yi nga xamante ne ñu ngi yëngatu si dara muy seeni gëm-gëm muy lan seeni liggéey tey nag ma daagu bëggee géejawaay rek ñëw fekk fii comme ni ma ko fi waxee une jeune talent. Euh, ñu koy nommé rek xaritu euh, baayam xaritu baayam sama premier question du lenn lu dul kii est xaritu baayam. waaw xaritu baayam benn jeune fille la ñu koy surnommé xaritu euh, baayam mais man maa ngi tudd Soxna Fatou Faye nekk fii nga xamante ne moom mooy géejawaay juddoo fi yaroo fi màggee fi nekk comme ni nga ko waxee jeune animatrice future sax laay wax mën naa wax loolu parce que maa ngi jàng ba léegi pareegu ma bëgg ñëw nag ñoo génne autrement ko ni ma koy faral di waxee ci samay biir wax waaw kooku may xaritu baayam daal ci gàttal. ci gàttal ko ni nga ko waxee future animatrice mais man damaa ne animatrice la déjà euh, xaritu baayam lan moo waral surnom boobu parce que yaakaar naa ne léegi boo newul Fatouche walla nga ne bébé wala bokkatoo quoi ci ci ci animation lan moo tax nga génnee ci xaritu baayam bi. waaw euh, Binetou soo ma laajee question boobu dama ciy sawar tontu bu baax a baax. parce que xaritu baayam quoi dafa di loo xamante ne lu yàgg la parce que sama xaritu papa laa ma ma tënk ko ndax xaritu baayam. Hmm. ñu bëri na rek ma amuloo yaay. en fait hmm. dafa di loo xamante ne lu yàgg lu ma ci mën a indil lu ndaw mooy dama nekk xale. Hmm. Euh, nekk ak sama papa mu yar ma def ci man lu bari fu mu jëm yóbbu ma bañ naa ko xanaa kii sa raw kii mooy sa raw xel parce que dañ ma daan wax naa man euh, ba ma nekkoon xale dama nekkoon koo xam ne ku tuuti laa woon. moom ma topp sax jusqu'à présent en fait léegi mu yore woon ma avec mes petits frères it tout mm-hmm. mu ne mu jël ma daal taf ma ci boppam man tam ma collé ko trop fu mu doon dem yóbbaale ma loolu moo war a turu xaritu baayam bi moom tam macha allah mu nekk sama xarit ah. sama complice voilà loolu mooy indi xaritu baayam bi tur bi firndeel ko xaritu baayam daa mel ne <laughs> matali na lépp ah. chers internautes yéen a ngi en action ak Binuch euh, ci seen émission GPS Tour GPS Tour comme ni ma ko waxee rek mu ngi dalal xaritu baayam mu ngi dalal euh, soxna Fatou fay ñoo xamee ko ci xaritu baayam xaritu baayam fan nga jaar ba fii parce que tey bi ma defee sama gëstu xam naa ne défaut français mm-hmm. mais arabe nga jàng mm-hmm. fan nga jaar ba ba fii waaw jërëjëf kontaanati naa sa comme ni nga wax defuma français d'accord dëgg la maa ngi dalee li nga xamante ne mooy alxuraan boo seetloo sa école teelu ma dal euh, li nga xamante ne mooy école ndax ñun sama ko comme ma ko waxee rek dafa wax doom du jàng école doom daara lay jàng alquran lay jàng donc ma doon ma nekk koo xamante ne du ma ne wàcc naa alquran waaye sori naa ci donc jàng naa façon daara bu nekk jaar naa ko dund ci yoo xamante ne yu metti la parfois day métti parfois dafay neex ma jaar foofu mën naa ne après à l'âge de dix à neuf ans yooyu laa dugg école parce que temps yooyu il faut tam sa doom tamit nga jëm ko xamal alquran dëgg la mu jàng ko xam diineem waaye tam nga jàng ko mu xam wàllum àddunaam tam ci am solo ci la ma dugalee li nga xamante ne moom mooy école franco arabe maa ngi ko maa ngi dooree fi ñu naan Cheikh mun naa ne macha allah fa laa defee sama primaire secondaire ba bu may am bag en arabe parce que bi may am bag mun naa ne boobu bac bi sax reconnaître ñu ko woon ci waa état bi reconnaître ñu ko woon voilà Cheikh Zayed daal mun naa ne falaa laa passé sama lépp ba am fa bac moo fa jógee def euh, benn concours euh, fee Al Mermoz ma demee ah, foofu université arabe la dem def concours bi yàlla def ma génn ci jàll falaa defee aussi sama trois sama sama trois ans yi falaa ko defee mais ma jumaa continuer parce que comme ni nga ko waxee rek animation animation bi pour nekk animatrice daf ma neex ma ne pourquoi pas ma doon defi ji euh, formation bi en fait mais bon tant que sama papa moom dafa gëm arabe bi te fii boo seetloo Sénégal pour nga def formation en en euh, formation animatrice euh, en arabe amu fii parce que xool naa mais amul mais pour man li ma mën mooy dem di jëm ko defi ji en français voilà te tant que xaw naa sob ndax maa ngi dëkk ak sama sama yaay ko épousam ah, ñoo bokk benn appartement te kooku macha allah dafa dégg français et tout chic yooy noonu yooyu moo permettre tant que man tam dama sob damay day wax français ma koy tontu parfois je fais des des fautes bu may corriger du ma rus daal pour def faute parce que xam naa ne nàmp ma ko te itam mën naa itam jàngu ma ko kon man su ma defee faute mu corrigé ma avec la manière xam nga ma xam ne du nii nii la ma continué di wax aw ma ci kersa du ma ci rus noonu ma ñëw tamit nekk ak samay belle-sœur am na ci ñoo xamante ne jàng nañ su may waxtaan ak ñoom damay ay fautes mais damay corriger ci bi ma xam ne du nii nii la loolu moo tax ñu bay dañuy yaakaar ne français laa jàng aloo ko jàng ma français arabisante la ok si arabisante boobu fa laay ñëw ba tey mhm. xaritu baayam parce que gis nañ ne Sénégal ñu jàng arabe en général farataalu ñu leen trop que ñu jàng beneen langue mm-hmm. te yow tey nga nekk en arabisante jàng ko macha allah di ci wax comme ni mu la neexee tey lan moo la dugal ci métier euh, animatrice bi voilà en fait wala mm-hmm. journaliste en fait dugal ci métier bi ok parce foofu damay sawar ci tontu kon ni ma ko waxee sànq sànq euh, dama dama nekk koo xamante ne à chaque fois man dama lay suivre seen bi nga xamante ne mooy Al ndax boo boo seetlu dañu naan boo bëggee dégg arab parce que arab dafa di langue boo xamante ne langue bu difficile la pour tey ji nga wax ci phrase bu correcte sax er, problème la parce que dañuy gis koo xamante ne jàng na peut-être bu am bagam mais tey ji su waxee arab rek xam nga nga xeeb ko fekk langue bi mu moo diis te itam nàmpuñu ko tant que nàmpuñu ko faaw ñu sob ci boo ci sobul doo ci mën a dem du ma ne dégg naa ko carrément waaye sant yàlla maa ngi ciy wax sama soxla li nga xamante ne maa ngi ko ciy wax bon xamee loolu nag ci laa commencé di déglu xool ni ñuy defee seen seeni euh, jigéen ñi nga xamante ñooy présenter journal affaire boobu neex ma dañuy présenter journal ma xool Sénégal fii ñi nga xamante ne ñooy présenter journal amul Europe arabe français la ñuy def olof. après noonu may suivre di suivre laa gis benn télé wala fajir mu commencé ñuy présenter journal yi en arabe te jigéen moo ko doon def affaire boobu gën maa motivé man pourquoi pas man tant que arabe laa def te fii li ñuy wax mooy ku jàng arabe rek muy góor muy jigéen forcément dangay dem jàngale jiwaat. wala bu dee jigéen nga dem toog nekk femme de ménage et tout maanaam man damay ñëw autrement damay ñëw wane sama bopp lii laa bëgg jàng arab laa jàng te dama koo gëm te macha allah lu ma neex la kon pourquoi pas ma jéem a def benn formation même su fekkee damay dem ci télé yi ñu ma leen di liggéeyal dama gëm ni man dama war a amaa sama télé wu bopp di defar sama bopp journal yi tout di animer sama bopp autrement nag. métier journalisme mm. doon métier bu doy waar rawatina ci jigéen est-ce que yow mës nga cee am. lu la déranger wala boobu ba tey euh, voilà mun mm, naa ne amaguma lu ma ci déranger parce que ba ma ci nekk léegi yàggul di sant yàlla bu baax parce que sama formation maa ngi ko dooree fee nga xamante ne moom mooy school jobs yàlla baaxee ñu ak benn professeur boo xam lépp loo xam ne dafa nekk ci milieu bi avant dara dala koy wax milieu bi kat lii moo ci nekk yow journaliste yow da bëgg ñëw nekk journaliste nga bëgg a doon man du ma la conseillé nga jàng wax rek dama lay conseillé nga na nga mën caméra na nga mën a monter sa bopp na nga mën li na nga li ba nga xamante ne yéen yi nga xamante ñu ngi koy def seen moom duñ la ko def. maanaam lépp luy audiovisuel. audiovisuel merci beaucoup. lépp luy audiovisuel yow tey def ko. yàlla ñoo baaxee ñu aussi directeur boo xamante ne macha allah mi ngi daf ñu doon jàppale donte ne yàgguñu fa. mi ngi ci doon jàppale bu baax a baax loolu loolu tamit mu nekk lu am solo franchement yàgguñu ci mais bon pour l'instant mën naa ne dunduguma ci loo xamante ni mun nañ lu métti la ah. macha allah yéen yéen a ko déggandoo ah. may dalal rek ci sama première émission GPS2 dalal fi xaritu baayam. Mhm. xaritu baayam ba tey damay continuer ak yow mooy dama gis euh, sa solin. Mhm. sa solin macha allah dafa yiw ba nit ñi dañuy laaj ndax da nga am jëkkër wala tu es marié tu yow daal. Hmm. célibataire nga wala parce que à chaque fois question boobu dañ ma koy posé ah doon man aussi li ma jaaxal parce que fu ñu la fekk macha allah yaa ngi yiw li nga def arab moo tax wala. bon peut-être que joué na ci mais comme lu ñuy wax rek waajur ju baax wala boog ni ku nekk ça dépend ci environnement bi ngay dund parce que fi ngay dund moo la mën a déterminer yoo personne bi. Hmm. man bon mun naa ne sax avant ma doon avant ma doon parce que jékki-jékki avant muuru muuru am na yenn solin yoo xamante ne daaw ma ko parce que dañ dangay parfois dangay gis koo xamante ne muuru na changé habillement wala changé garde-robe man loolu dalu ma maa ngi sant yàlla bu baax di sant ah, samay waajur ndax dafa amaana ñoo ko def ci man ndax sama papa dafa nekk kilifa goo xamante ne macha allah fa mu dëkk ñëpp dañ koo respecté tant dañ koo respecté ñun ay doomam ñoo ko ci war a jàppale bon te tey yàlla def ci kër ga may mag di taaw kon mën naa ne ñi nekk sama ginnaaw ci man la ñuy xool loolu moo waral bon duñ la wax na la defee nii mais yow en tant que personne yaay xool li nga xam ce qui est raisonnable nga def ko ak li raisonnable nga def ko loolu moo waral benn comportement bi may solo noonu soo ko solo bon dañuy respecté ma gis ñeneen ñi bu bu ñu solo autrement ma gis yi ciy xewee ba pourquoi pas mu say cër nëbbu say cër tu tee nga solu mu correct nga solu mu benn noonu la demee waaye nag je ne pas mariée je suis célibataire voilà euh, macha allah comme ni nga ko waxee xaritu baayam daanaka li ma cëralee woon ci waxtu jeex na luy sa mot de la fin bon sama mot de la fin du lenn du kontaan naa bu baax ci li nga xamante ne invité nga ma ko ci sa euh, première émission bi di ñaan yàlla yàlla na yàlla la fa ci sa émission bi nga xamante ne moom moom ngay def euh, di di sant yàlla bu baax aussi di ñaan ak ki nga xamante ne moo nekkoon suñu directeur mu Moussa Mbengue duma ma jug ci di ko wax ndax mën naa tey jii ñu amee fit caméra taxaw ñuy wax sans trac gannaaw yàlla moom la gën euh, bien vrai que ni temps bi ñu passé yàggul mais à chaque fois lu ñu doon wax gëm leen seen bopp ndax mën ngeen a dem di wax kooku du ñu fu ñu toog lañ koy ñaanal fi nga xamante ne fa la fa mu nekk gën gënal ko fi mu jógee ndax xam na yéeneem bu baax a baax te incha allah lépp lu ñu mën dañ ko def di remercier samay wajur di remercier sama papa au passage di ko wax ne mën nañ ko trop trop ah, waaw ku lim ju kontaan bu baax ci émission ci invitation bi nga xamante ne invité ñu ma ko. plaisir à chers internautes KS comme ni ma leen ko waxee woon rek yéen a ngi seen première émission KS TV lii rek lañ leen fi indiloon ci seen émission GPS Tour ma leen wax rek la lu duuf ci nag li lépp xajul ci cindi l' émission tire à sa fin. bu amee bépp kàddu bu dérangeante na ngeen ñu baal du woon suñu intention suñu intention rek mooy di jubal di dëggal ak di leeral tey nag ma indi woon fi xaritu baayam ma leen di jox dig daje ci yeneen émission incha allah ak yeneen i star ak yeneen i jeunes si GPS Tour merci